ci bis bu tedd bi di leen ci balu ak di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu jéggal ci suñuy bàkkaar di ko ñaan mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla yépp di ko ñaan subhaanahu wa taala mu sàmm sàmmal na suñuy kilifa di ko ñaan mu yàggal fi Cheikh mu Mountakha te yokk ko wér nuy dellusi si ci euh, waxtaan yi nga xam ne dañ koo jëmale woon ci amalil qulub te mooy jëf yi nga xam ne xolub doomu aadama moo koy jëf ndax ni nu ko xamee nit ki dafa am ñaari wàll am na jëf yoo xam ne ci ay cëram la koy jëf waaye waxtu wi cër yi jëf xol bi it am na lu mu war a def lu ca war a nekk ñaar yooyu nag dafa mat a xàmmee ndax benn mënu cee dem bàyyi sa moroom jëf ja di baax moo tax nit ki di war a bàyyi xel ab xolam di ko nemmiku saa bu nekk di xool ba xam ca la mu nekk la cay wàllu xol ba ndax mat na ndax dañuy wax ne sax boo ko seetloo ba seetlu ko jullit bi eh, li muy def la ca féete ca xol ba moo ëpp solo la ca féete ca cër ya loole nag li koy tegtale bari na ndax jëf yi nga xam ne nit ki mi ngi koy jëf ci kaw ay cëram di ko def suñu boroom subhanahu wa taala du ko nangu feek la war a nekk ca xol ba ci ay jëf nekku ca ci misaal nit ki lu muy def ci lu baax su fekkee ne yéene ja sellut jëf jooja suñu borom subhanahu wa du ko nangu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ne innamal amalu yaati nga xam ne kon nit ki la muy jëf bu koy jëf ci ay cëram dafa war a fexe ba yéene jay nekk ca xol ba sell nga xam ne suñu boroom rekk la ciy jublu kon jëf bu ko jullit bi defee te ba mu koy def bàyyiwu ca xel suñu boroom subhaanahu wa taala wala boog ma nga cay bokkaale suñu boroom ak leneen loolee suñu boroom du ko nangu wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diina xunafa te yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne yàlla du nangu ci jëf yi lu may jëf ja nga xam ne dafa sell nga xam ne ki ko def suñu boroom rekk a tax mu def ko nga xam ne jëmmi suñu boroom rekk la cay sàkku inna allaha la yaqbalu min al amali illa ma kaana xaalisan wabturiya bihi wajhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne suñu boroom moo ne man dey mboolem li ñuy bokkaale maa ci gën a doylu walif ak bokkaale ndax képp koo xam ne jëf na jëf joo xam ne bokkaale na ca keneen ku dul man wala leneen lu dul man ma bàyyee ko jëf ja ak lamu ko bokkaaleel mu wax ne ana ana shuraka yaani shirki man amila amalan ashraka fihi gayri taraktuhu sharika kon loolu day wane ne kon li nit ki def ci xolam lam ca yéene loola moo ëpp solo ñaareel ba mooy xol mooy nit mooy li nga xam ne bu baaxee ci nit ki nit ki léppam baax waaye bu fekkee ne xol ba ab safaan ci la nekk loola it mooy feeñ ca cër ya yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne ala inna fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wahiya alqalb kon mooy cër bi nga xam ne ci nit ki su baaxee léppam baax waaye su eh, ayibee it léppam ayib ñetteel ba liy wane ne xol moo ëpp solo moo di ne moom la suñu borom subhanahu wa laa di xool yàlla du xool suñ jëmm yi du xool suñu melokaan yi waaye la muy xool ci nun mooy sunuy xol loola yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne ko waxoon na ko ne inna allaha la yanzuru ila ajsaamikum wa suwarikum yanzuru ila qulubikum bokk na ci liy tegtale it ne xol dafa am solo di mat di nemmiku mooy lay taxa texe ëllëg mooy booy dem ca sa boroom sa xol set wicc sa xol sell sell ci bokkaale sell ci naafeq sell ci mbooleem ayib yi nga xam ne day ayibal xol suñ boroom wax na ko ci làmmiñu suñu maam ibrahima wala tuxzini yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun wala banuuna illa man ata bi qalbin salim kon lay jariñ nit ki mu ëllëg salaamatul qalb kon jëfi xol yooyu nag yu bari la sellal dëggu waaye da caa bokk ji nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane mooy at taqwa te mooy ragal yàlla ragal yàlla dafa doon loo xam ne ci xol lay nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa doon na wax ne ragal yàlla mu ngi fii daal di junju ab xolam du junju ab dënnam loola muy junju ci ne ragal yàlla ci li ñuy tuddee xol ca lay nekk wax ne at taqwa hahuna daal di ab dënnam def ko ñetti yoon waaye suñu borom dañuy seetlu ne it bi mu tuddee taqwa tudd na taqwa wéer ko ci suñuy xol maanaam moomale ko xol yi dalika wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa al kon loolu day wane ne jëfi xol yi taqwa te mooy ragal yàlla da cee bokk ragal yàlla googu nag nit ki di ko war a bàyyi xel saa su nekk di ci soññ boppam di ko jéem a nemmiku di xam lu mu doon di ci di jéem a taqoog moom ndax kat ginnaaw yàlla dafa wax ne li ma dénkoon xeet yi jiitu dénk leen ko yéen jullit ñi mooy ragal ngeen ragal yàlla waxoon ne walaqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah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 واشهد ان محمدا رسول hayya ala salaam suñu borom subhanahu wa taala dénk nañu nu nu nu ragal yàlla waaye digal na jullit yépp ci alquranul karim ne nañ koy bàyyi xel te ragal ko dëgg-dëgg ragal yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla la suñu boroom digle mu mel ne mu fassiroon yi wax nañ ne bi mu ko waxee saxaaba yi laaj nañ ko ndax dëgg-dëgg ragal yàlla googu ku ne mën na ko ndax kenn mën na ko nee na ci la suñu borom wàccee fattaqullaha mastataatum yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle ko fu nekk soññ ci jullit ñi bàyyi loo leen ko xel am na ku ko mosal laaj moom yonent bi salaam ne ko yow yonent yàlla bi dénk ma mu ne ko alayka bi taqwallahi fa innahu jimaau kulli xayr li ma la dénk mooy ragalal yàlla ndax loolu ci la yiw yépp nekk dénkaane feneen na ittaqillaha xaysu kunt foo mën a nekk naga ragal yàlla mu bokk nag li jëmmal ragal yàlla li koy màndargaal la cëpp ëpp solo mooy di góor góorlu ci ndigal yàlla yi lépp loo xam ne lu suñu boroom digle la nga di ko jéem a def sa kem kàttan la nga ca man lépp nga def ko waaye di góor góorgóorlu ci bàyyi tere yàlla yi lépp lu yàlla tere nga bàyyi ko te bàyyi tere yi nag moo ëpp solo moo gën a màndargaal ak ragal yàlla moo taxoon sahalu ibnu abdullah tustari doon na wax ne képp koo xam ne bëgg na ak ragal yàllaam wér na bàyyi bàkkaar yépp man araada an yasixa lahu taqwa fal yatruki zunuba kullaha te suñu boroom subhanahu wa taala bi mu waxee ittaqullaha yi bokk na ci firi yiñ ko firi mooy ngay topp yàlla bañ koo moy di ko tudd bañ koo fàtte di ko fàttaliku saa bu nekk waaye di sant xéewalam yi nga xam ne xéewale na la ko nga bañ koo weddi taqwa boobu muy ragal yàlla nag lu bari ay meññat la lu muy lu bari ay njariñ la ci jullit bi bokk na ca taqwa da lay ubbil ay bunt bépp jafe-jafe boo nekk taqwa mën na la caa génne loolu wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu daan soññee lool nit ñi ci ñu ragal yàlla daan ci xemem loo nit ñi boo demee ci xikamam yi bari na lool lu muy tudd ragal yàlla di wax njariñ yi nga xam ne dana ko jural nit ki wax na ne képp ko ragal yàlla yàlla wutal ko ab génnukaay ca jafe-jafe yu mën a nekk da ko misaal ci koo xam ne dafa xiif lool gis aw ñam wu mën a jëfandikoo mu bëgg koo jëfandikoo nee na ak ragal yàllaam gëdd ko mu bàyyi ko nee na mu delluwaat fekk ka koy jaay mu waxaaleeg moom ba mu ko jëndee ci moom ba noppi ba ka ko doon jaay may ko ñam wa may ko njëgg nee na loolu moo tax suñu boroom wax ne wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib nee na génn waaye kon nit ki bu ragalee suñu boroom jafe-jafe ya muy nekk suñu boroom subhanahu wa taala moo ko ci génne ragal yàlla googe kon sabab la ci tàqalikoo ak ay jafe-jafe sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxaat na ne it ne suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi ci barab yépp ci xam-xamam ak kàttanam ak nguuram kon nanga ko ragal ci topp ay ndigalam boo ko defee dina la jox li ngay mébét lépp na nga ko ragal ci moytu ay tereem boo ko defee dina la fegal lépp loo ragal di ko daw wa man yattaqillaha yaj'al lahu waaye ragal yàlla it mooy tax a tedd inna akramakum indallahi atqaakum moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon ne képp koo xam ne bëgg na yàlla teral ko ci àdduna ak alaaxira na ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla nee na saa bu taqoog ragal yàlla kem kàttanam yàlla dana ko teral ca la ko dese ci ay ngëneel dana ko ko defal ci ay ngëneelum ay ngëneelam moom suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne man ahabba an yakuna akrama annaasi falyattaqillaha ku bëgg a doon ki gën a tedd ci nit ñi na ragal yàlla kon ragal yàlla mooy joxe teraanga mooy taxa tedd ca suñu borom subhanahu wa taala li kawe loolu lépp mooy ëllëg yowmal xiyaam dana jàppandal àjjana ci ñi nga xam ne dañ ko ragaloon ñi nga xam ne dañ ko ragaloon ñooy doon ay xejjam ci ëllëg duñu am lu ñuy tiit duñu am lu ñuy jàq wa uzlifatil jannatu lil muttaqina gayra baid waaye waxoon nañ alaa inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yahzanuuna alladina amanu wa kaanu yattaquun kon ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu booleñ ci ñi nga xam ne way ragal yàlla lañ ci ëllëg mu boole ñi nga xam ne dinañu baaxe ci xéewalam tabal ñu àjjana taqwa googu nag xutba bi nga xam ne moom la imam wara a xutba ci taqwa googu la jëm ci xutba bu njëkk bi ginnaaw bi mu santee yàlla subhaanahu wa dafa wax ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi euh, dafa wax ne yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ragal yàlla mu màgg mi di leen wattandikuloo àdduna ndax àdduna kat du dara dafa mel ne ay génti kuy nelaw te àdduna bii kat balaa yàgg da ngeen fi jóge dellu ci seen boroom kon boog na ngeen bàyyi xel dabaatal li desoon ci seenug dund dund koo xam ne la ci ëpp wéy na te jeex te lépp loo xam ne war na leen ci ay àq yoo xam ne ci jaam yi la jóge na ngeen ko jooxe nangeen fexe ba fay àq jooje ndax kat bu ngeen ko defut ëllëg dañuy jël ci seeni yiw faye ko ñooñee ngeen amee yi àq kon balaa loola am na ngeen jooxe àq yi nga xam ne leen war lépp loo xam ne lu ngeen di jëf la loola day dañ koy bind denc ko ba yowmal qiyaam te it lépp lu ngeen jëf ëllëg des na leen ko laaj bis ba nga xam ne seeni làmmiñ dina leen seede seeni loxo seede leen seeni tànk seede seeni jëf muy bis boo xam ne lépp lu ci waaye def ci lu baax dana ko gis waaye ku defub safaan it lum tuuti tuuti danga ko gis fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara mu wax ci ci xutbam ñaareel bi ne ginnaaw ba mu sante yàlla subhaanahu wa julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne yéen nit ñi képp koo xam ne topp na yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku day mooy ki aw ci yoonu njub waaye képp koo xam ne mooy na leen ñoom ñaar na xam ne du lor kenn ku may boppam loola du wàññi dara suñu boroom te yàlla dafa wax ne dafa bëgg ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla inna allaha yuhibbul muttaqin te kat jaam bi amul teraanga ju gën kawe ju gën a màgg ci suñu boroom subhanahu wa mi ko bind di kilifaam di sàngam bëggal ko boppam kon ki texe dëgg mooy ki nga xam ne mi ngi góor góor lu di gaawtu di topp suñu borom subhanahu wa taala te taqoo ko ragal ko gënal bëggeel gi ko suñu boroom di bëgg ci mbëggeelu leneen lu dul moom nee képp koo xam nag àdduna soxal na ko dox diggam ak loolee mu jiital àdduna ci topp boroomam jiital topp bakkanam ak bànneexam kooka mooy ki nga xam ne moo perte kooku mooy ki nga xam ne mooy kii li nga ki ki ñàkk lim doon wut kii rëccu ëllëg kon nag nañ am kersa ci suñu boroom nañ rus yàlla di ñu gis gis kenn ci ñun ci loo xam ne jëmalewu ko ci moom kon nañu góor góorgóorlu ba bañ a sàggan ci lu ñuy jegeel suñu boroom waaye nañu dëddu ci lépp loo xam ne mbirum àdduna la muy dox suñu digganteeg ñu am cofeelu suñu boroom googee nañuy xool nañ bañ a xool ne lii ak mooy yàlla la gu ndaw mooy yàlla du tuuti soo xoolee màggug yàlla mi nga xam ne moom ngay mooy kon mooy ga doo ko xeeb kon nañ bañ a xeeb ak mooy nañ xool màggug suñu borom subhanahu wa taala nañuy fàttaliku waxtu wu nekk ne am na ñu yàlla yabal ay malaaka yoo xam ne waxtu wu nekk ñi ngi bind suñuy jëf di ko tënk dara ju ci rëcc an ilyamini wa an ilchimaali qaid maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nañu suñu borom subhanahu wa taala jéggal yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala boole ci way yàlla yi yal na yàlla wàcce jàmm ci àdduna bi defal jàmm jullit yi fépp fu ñuy bundu xal bundu xatal ab jullit yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala xettali rawatina suñu mbokki jullit yee nekk Palestine yàlla na yàlla xettali leen yàlla na yàlla wàllu leen te ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh mu Mountakha yokk ko wér ba mu àggale lépp loo xam ne ay naalam la te nu àndu ak ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 ashhadu an la الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه الملة الطاهرة التي لا ملة تشبهها ونستعينه ونستغفره من ذنوب من ذنوبنا لا رب سواه يغفرها ونشهد أن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله أولي الفضل والنهى أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله العظيم وأحذركم الدنيا فإنها كأحلى من نائم وأنتم عما قليل راحلون وإلى ربكم راجعون واستدركوا بقية عمركم فقد ذهب جله وانقضى وأدوا ما عندكم من حقوق العباد قبل أن تؤخذ من حسناتكم وتقضى وما عملتم وفي كتاب الله مدخر إلى يوم القيامة وأنتم فيها عن أعمالكم مسؤولون يوم تشهد فيه عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم بما كانوا بما كنتم تعملون قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحمد لله الذي أفاض على الوجود بحار النوال وصح على كل موجود صحائب الإفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله بأمره داعيا وللصراط المستقيم مرشدا وهاديا وكان أشد الخلق أشد الخلائق وأقواهم عزما صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأكابر الكرماء وأصحابه الأشداء الرحماء wa atbaacihim alladina xaazuu min maqami sacaadati qisama amma bacd fa yaa ayuha annaas man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man yacsihimaa fa innahu laa yadurru illa nafsahu wa laa yadurru allaha shay'an qaala allahu taala inna allaha yuhibbu almuttaqin wala sharafa lilabdi ahdamu min an yuhibbahu sayyiduhu wa mawlaahu faqad faaza man tabaacada ilaa man tabaadara ilaa taacatihi wa taqwaahu wa aaxara maxabbatahu ala maxabbati kulli ma siwaa wa laqad xaaba man shagalathu an dalika dunyaa wa aathara ala taacati rabbihi taacata nafsihi wa hawaa falnastaxi ibaad allah min rabbina أن يرى أحدنا فيما يقربه إلى الله متوانيا وأن نزهد فيما ننال به محبته ونرغب في لذيذ يسير فانيا وأن ننظر إلى صغر المعصية بل ننظر إلى عظمة من يعصي من نعصي إلى عظمة من نعصي ولنتذكر أن علينا حفظة تكتب ما نفعل وتحصي قال جل من قائل عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 allahu akbar habana ما علمت عالية تسقيهم من عين آنية ليس لهم طعام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 allahu akbar habana الله الله السلام